al ibadatu wal xidma di jaamu réew mi am kàddu yu may yëkkati rek muy kàddu yu laabire suñ bopp di kàddu yu laabire suñ bokki réew yépp kàddu yi mooy lan mooy ñu warmaal suñuy kilifa ndax nun ñi wër suñuy kilifa noo mën a warmaal kilifa te jamono nii muy doxee nii ah yéeme na lool ndax nun moom buñ ko dee seet day mel ne àdduna fëkk nañu fëkk goo xam ne lap nañ ci biiram waaye nag lu nu lab-lab ci àdduna ñu xam ne àdduna moom àdduna rek la te li tax ku nekk ci réew mi ku ne war a am tiitaange ci kilifa yi nii jamono di doxe te day yab lu suñ bopp ba yëpp ba ñëpp yab ñu ñu waññeer bi ko nag yab lu suñuy kilifa loola day dara àddina jëru ko te doxin gu yii dey buñ ko xoolee ba ci biir ñoo ngi ci tànki yab lu suñuy kilifa te loolu nag dara àddina jëru nit fi lim gën a yaakaar nekk foofa bu dee fo da ko war a teggi te suñ kilifa yii dey ña nga ca la leen war muy jaamu yàlla di ci xiirtal nit ñi wéetal yàlla di ci xiirtal nit ñi di liggéey di dunde seenu ñax di ca xiirtal nit ñi foofu dalañ teg seen tànk te fa lañ nekk keneen ku nekk ci leneen yaa ca nekk waaye ñoom ci lii lañ nekk te yi noon yi day dañ ko dul bàyyi xel toujours te ñoom de toujours ñu ngi ci fexe yi nu ñu mën a fexe ba nasaxal suñ kilifa yi loola nag day jot nu xam ko xam na ñuy dunde ci jamono jii ndax nasaxal googu ñu bëgg a nasaxal suñuy kilifa bañ a am ndax buñ demee ba kilifa gu ne am ñu la wër ah di doxe doxin woo xamante ne yëgoo tinoo te doxin wa ñuy doxit doxin wu mat ndax doxi doxinu mànkite ci kilifa doxinu mànkite ci kilifa mooy farfarloo farfarloo ci politique seen yi nga xam ne jëruñu ko jëruñu ko tey jëruñu ko démb duñ ko jaral nag kon nag loola koo xam yaa nga cay jañax sa kilifa yaa ngi manqué sa kilifa boo ko yëgee ak boo ko yëgut te nii ñu def ah jël kilifa yi ah bëgg leen def cërum ndaañaay lu jóg rek ñu dugal leen ah loolu day jékkut yellut rafetut ñoom ñooy sun sag ñoom it lañuy sagoo te kuñ ci teg seen nit sag boobu ci kilifa yi moo tax ñu teg la fa yàlla te woon nga xam ko nag ba xam ne sag bii tax ñu teg la fi wuroo koo sàggi waaye fi mu toll de li xew yéeme na lool te dara waralu ko lu dul àdduna rek te it doo xam àdduna noo koy jàngate ndax yow bu dee teraanga am nga ko ba mu doy sëkk ndax am nga kilifa kilifa yi nga xam ne ñooy kilifa yi diine ci biir réew mi kenn ku ci ne yàlla teral na la te teraanga jooju day du loolu liggéey sa waajur say maam ñoo ko liggéey nga waroon a jël teraanga jooje delloo njukkal say maam muy tabaxi daara ña nga xam ne doon sa njabootu kër maam yëpp nga fas yéene dugal leen ci daara yooyu ñuy jàng seen diine di jàng lu lu ñuy xamee seen diine di jàng it nu ñuy doxee ci àdduna loola day mooy delloo njukkal teraanga ji nga xamante ne ku ci aju ci kilifa diine gu ne teraanga jooja am nga ko te doo tàggoog moom it nag waaye boo ko fa bàjjee di ah nekk ci leneen ah lu bokkut ak la say maam doon dunde ndax ñoom seen lépp dañ koo jaayoon ngir sàmm diine lislaam ci réew mi ba seen góorgóorlu googee day tax ñëwuñu kenn ci diine waaye la doxin yii nga xam ne mooy wu bees wii xew de mel na fi ñu moom la yëkkati woon seen maam yooyee mooy matérialisme dem ba matérialisme boobu sax dafa mel ne moom la ñuy wanewoo seen maam yooyu loolu day pexey noon bi la te seen maam yee de lañ daj ci bëggoon a jëmmal lislaam ci bëggoon a dëgëral lislaam wuute naag lool daw topp ci nit yi àddina yi di dox ci seen bànneex di dox ci seeni ndigal fàtte la samaam ñoom doon def te ñoom de ak ju koo jarade ñoom ak koo jarade ñoom de jëruñu ko de jëruñu ko ci nu nit nag jëruñu it ñuy woyofal suñ kilifa yii nga xamante ne lu ne ñi ngi togg ak moom di ko daj ngir bëgg a sàmm rek ndonal seen maam yooyu nga xam ne du lenn ndono lu dul ndono lislaam nuy ñaan sunu borom nag ku taxaw ci sàmmali leen ndono loolu yi yàlla na la fi yàlla bàyyi te kàttanal la waaye ku taxaw ci màbbu seen ndono loolu yi yàlla na la yàlla suuxal moom mi am kàttan te man ba ndono loolu doo ko suux du doon looy mën a suuxal ndax it réew mi yaakaar naa fii ñu toll mel na na taxaw nañ temm ci suñuy kilifa ñu doyadal leen ci lan ci àdduna ci poñet mu bon mii nga xamante ne ah, ñi jaay seen ngor ñëpp amoon nañ ci loo xam waroon leen doy sikk ñu daw wutee ko seen boroom jaamoo ko seen boroom jëme ko ci njabootug lislaam ndax njabootug lislaam day tumuranke gii mu tumuranke jaawale guñ jaawale rek moo ko waral waaye day seen maam yi de li ñu liggéey li ñu liggéey ci lislaam këru diine goo dem seen maam yi lañ liggéey ci lislaam buñ ko delloo woon lislaam day lislaam am lim bëgg kon de lislaam du tumuranke kon lislaam tey du jaaxle kon nag jaan na dëpp dëpp jot na ngeen xam ne politiciens yi jëruñu dara wallahi jëruñu dara ku ñu tax bàyyi sa ngor bàyyi sa diine bàyyi sa ndonal maam bis dina ñëw danga ko réccu te boo koy réccu day fekk jëf weesu te doomu aadama yi de ku ne xam na ne taxawaay bii ñu am ci seen bopp ak futteeku gii ñu futteeku seen bopp xawma li ci ginnaaw de waaye lii ci kanam de jàpp naa ne daañ ci doxe doxin woo xam ne nituk àddina duut leen mën a nax kon nag noo ngi sant tey gërëm tey ñaan rek ñu xam ne amuñu lu dul suñ kilifa yi ñu leen sàmm te aar leen te warmaal leen kilifa gu ne na ma ko waxee ca tàmbali ba ñu koy wër ñoo ko mën a warmaal waaye kilifa gu am ay bennet bennet ci biiram yoo xane kenn xamut luñ doon ci àdduna ñu nuur ci àdduna ba xamatuñ dara lu dul àdduna di basar di kilifa yi ci mbedd mi rek di basar di kilifa yi ba ku leen war sa yàpp di jóg te ñoom yëguñu tinuñu ñoom ña nga ca la leen war yëguñu tinuñu ña nga ca la leen war rikk waaye doomu aadama yi yéen ñëpp na ngeen xam ne ñi ngeen dégg ñuy wax ba tax ngeen bëgg a dal ci seeni kilifa seeni kilifa yëguñu tinuñu yëguñu tinuñu war maa leen kilifa yi te tax noo ngi sant tey gërëm jërë ngeen jëf